waaw dañuy dañuy continuer rek mm-hmm. ginnaaw bi ñu amee mbégte dalal fi Mactar Souran moom moo jiite kon euh, Front National de Résistance kuréel la boo xamante ne ay parti opposition ñoom ñoo ci nekk monsieur Souran ginnaaw bi ñu doon nuyoo débat bi sax euh, dañ koy continuer ndax yéen def ngeen benn communiqué démb ci affaire Ousmane Sonko am loo xamante ne wax ngeen ko ci ci début communiqué bi nag fàttali ngeen ay yeneen fee yu ko fi jiitu Karim Wade Khalifa Sall ay ñoom Bougane Gueye Dany Abdoul mbay ñooñu jàpp ngeen ay kujje la ñi kujje gi la nekk mais Macky Sall da doon jéema a fexeel comme ni mu bëgg a fexeel kii Ousmane Sonko. waaw jërëjëf euh, maa ngi leen di nuyu comme ni ma ko defee léegi. Euh, dama bëgg masawu d'abord ah commencer par loolu masawu ñi gaañu ci mbiru démb bi euh, ñi ci ñi ci jàpp euh, oto yi ñu lakk kër yi ñu lakk aussi parce que xam nga ñooñu ay citoyen lañ ñoo xam ni xëy na même kër yi ñu lakk am na ñoo xam ni ay ndaw yu fa nekk seen soxnaa nga fa seen dooma nga fa xëy na mbir mi seen yoon newu ci moo tax fitna bon fitna lu doy waar la ci réew te man li ma jàpp mooy li xew démb lu ñu mënoon moytu la mënoon na bañ a am euh, mais ñun effectivement wax nga ko léegi FRN dafa génne benn communiqué euh, FRN nag jàpp naa ni kujje politique bi daanaka ñëpp a ngi ci. tous les partis presque de l'opposition PDS moo suspendre sa participation hein et euh, pour le moment ñu ngi waxtaan ak ñoom d'ailleurs pour ñu dellu si. ak ñi dem fekk Macky. Euh, ak ñi dem fekk Macky évidemment waaw ñooñu bokkatuñ ci ndax ku dem de l'autre côté moom mënatuñ le considérer comme opposition alors donc li xew démb ñun dañ ko métitlu parce que image yu ñu wane fii léegi dafa ñaaw gëj na fi am d'ailleurs depuis 2012 euh, mais ñun dañu jàpp ni li xew dafa dafa nekk loo xam ni du lu bees parce que ñëpp gis nañu fi affaire Karim Wade ak xalifa euh, Sall mais ñoom ñaar euh, biñ leen di faagaagal élec euh, ñëpp xam nañ ni politique moo ko lal ay élection ñu fexe ba bokkuñu ci et finalement d'ailleurs bokkuñu ci nga jël ku mel ne mbay Mbaye ak Bougane nga xam ni parce que bu njëkk ci Sénégal da daan faagaagal physiquement ñëpp xam nañu fi ay répression ñëpp xam nañu fi ñuy fi rey et cetera ñu ngi fàttaliku problème mu si laa am na yeneen ah, yu fi xew mais depuis 2012 dafa mel na euh, mbir mi dafa changé maanaam duñ la faagaagal physiquement duñ la rey waaye dañuy fexe ba yàq sa der. est-ce boobu moo gën a metti faagaagal. boobu moo gën a metti parce que parce que en fait euh, boobu li tax mu ndax xam nga gor moom gor nga rek dafa am loo xam ne boo ko laalee ci nit rek. Mm-hmm. même dundam yàq nga ko. te nit ku ne da am famille danga am ay doom. Euh, xam nga Sénégal question wu honneur ak question wu dignité nit ñi dañ ko fonk lool. maa ngi fàttaliku Macky Sall ci boppam président Macky bi mu amee problème ak lay Wade ba ñu bëgg ko xal ñëpp fàttaliku nañ ko dafa taxaw ni man du ma delluwaat. Euh, da amul lu ñu deful pour mu jubook moom mais. dafa am amul propam jiñ nañ ko fi ne mais monsieur Soudan bu ñu ñëwee ci fee yi fii du diggante Macky Sall ak Sonko li ko indi den ne Sonko la ak benn jànq. waaw loolu moo tax justement ñu ni mbir mi dafa am lu ci lalu xam nga am na loo ci wax sànq damay joxe benn exemple bu fekkoon ni mbir mi dañ ko yemale ci diggante Ousmane Sonko ak mu ko seqal problème du am. moom ci boppam nee na buñ ma woowee respecter samay droit danaa dem wuyu parce que citoyen la mais naka nga mun a comprendre à chaque fois que nom politique impliqué dans un dossier judiciaire yo ak yoon bala bala ngay wuyu ji sax dossier yaa ngi ci presse bi naka une enquête de police nga xam ne policier la ak nit ku ñëw di kalaame mm-hmm. le lendemain les PV sont dans les journaux loolu y a une volonté manifeste de nuire à quelqu'un c'est-à-dire te pourtant am na yu gën a garaaw yu fi xew wax ngeen ko sànq am na ñoo xam ni euh, ils ont été épinglés par les cours de compte par la cour des comptes am na ñoo xam ni am na lu ñu leen accusé mais dafa mel na bu fekkee ni ci wàllu alalu réew mi la ak euh, luubal wala yu demee noonu mbir mi mun nañ ko teg kenn du ci wax mais dès qu'un opposant est impliqué ci benn dossier dañ koy baral Euh, mbir mi génn ci presse bi ñu yàq daram. gis ñëpp gis nañu affaire Khalifa c'était la même chose les PV étaient dans la presse. mais les les, les journalistes aussi sont dans leur rôle. parce que dañu am information. les faits. absolument les faits la ñu yem. absolument traiter les faits. on est d'accord c'est-à-dire que man waxuma ni journaliste bi war na ko def wala war ko def dama ni. kan moo génne loolu kan moo am moyen wu aujourd'hui génne loolu une enquête de police donc a une volonté yàq deru nit liquider ko politiquement deuxièmement wax nga ko mooy pourquoi ñu convoqué ki ko convoqué xam na ni waru ko convoqué xam na ko parce que nit yoon la bu ko convoqué ñu bàyyi ba ñu lever immunité parlementaire am ñu woo ko calmement kon problème du am. kon daal yow da gis ne ayca. dama gis ni dafa am lu lalu ci loolu comme ni ñu def xalifa def ko Karim. Euh, euh, fa jéem a faagaagal Abdou Mbaye ak Bougane indi parrainage tànn ñi nga xam ni moom lay demal ñun dañu am nguur goo xam ni xam nga lan mooy particularité am moo di ñoom bépp mbër boo xam ni jóg nga pour taxaw dañ lay faagaagal démocratie nag du loolu démocratie dañu war a am compétition saine am un processus électoral mm-hmm. am des règles mm-hmm. bu ñuy jànkoonte ñu jànkoonteel ci wàllu carte kan moo raw kan la nit ñi bëgg kan la ñu bëgg. waaye bu fekkee ni yow seetaan nañ fi sànq président Amérique président Amérique doole bi mu am bu fekkoon daf ko jël. utiliser ko kon du dem. mais est-ce tamit xëy na opposition bi taxawaayam moo tax mu ñemee wala boog euh, pouvoir bi amee ñemee doxalee xëy na neen ñi comme ni ngeen koy waxee ak euh, ak yéen maanaam capacité de de résistance wala xëy na engagement bi moom moo tax moom mu ku mu ci bëgg a faagaagal faagaagal la yéen ni ngeen koy waxee. non xam nga taxawaay bi ñu war a taxaw taxaw nañ ko xam nga le problème mooy sànq am na ku ko fi wax dafa am ay limites yoo xam ni même politique. à ne pas franchir. à ne dafa am maanaam éthique dafa war a am ci loo gis. dafa mel na Sénégal wax nañ ko sanq même ci wàllu wut këyit wut ndàngam c'est-à-dire fii tout est permis l'important mooy nga faj sa soxla même boo même boo nekkee ci circulation sa nit ki yaakaar ni moo la war a doubler moo war a jàll c'est-à-dire que muusantu bi am. Mhm. muusantu dafa am ba ci politique mooy lu doon wax sànq. ci politique. fii dafa am ñoo xam ne dañuy xëy suba ba ngoon naan diw mi nan laa mën a def ba yàqal ko ba taxal ko. gis nga yéen a ngi wax ci wàllu Ousmane Sonko man pour man Ousmane Sonko benn erreur rek laa gis mu def. dafa ñëw dafa ñëw temps yi seet si ma sama kër ñuy waxtaan bi mu ñëwee bi mu wàccee daal di jël caabi otom ni chauffeur am bon état d'urgence la euh, mun nga ñibbi sa kër ma ne ko sëñ bi déet. bul def lii pourquoi ngay ñëw jàpp ni ce chauffeur dafa war a dem waroo nekkati yow fi nga toll man mun naa ko def mais yow waroo ko def waroo nekkati fenn foo xam ni yow kenn yaa fa nekk mais moom xam nga nan la ma tontu oui mais xam nga politique bi aussi dafay mujj metti man citoyen laa war naa mun a def sama sport war naa mën a dugg fa ma daan dugg démb ak bëkk démb parce que finalement je suis nit laa mm-hmm. war naa sëq ak samay mbokk dem seeti leen moom il a pensé que politique politique un homme politique doit avoir une vie normale. mais est-ce que dafa c'est-à-dire que cest or ñi mu ko seqal da gis Europe koo xam ne dawal président mun a dawal welam dawal otoom dem yoonam mais ma ne ko mais fii da ngay dawal benn waaye lay mbëkk léegi rajax da nga wàcc mu jam la saaga la jam la paaka ñu ni bon benn kii et donc fii amuñu. culture boobu maanaam culture naxante ak culture yàq der lañu lañu xam attendant mu koy leeral daf daf ci wala ci cas bi non man xam nga man fekkuma fa non dem ba dem ba xam nga ni ko oh, Abdoulaye waxee non dem ba dem ba non dama lay wax Ousmane Sonko li ma wax mooy man li ma gêné mooy nit ñi ma ñu may déranger dans la rue mais war naa mun a wàcce daw def sama sport xam nga tey euh, salon de Massa il faut qu'on fasse très attention dégg naa li ngeen wax c'est vrai il y a des spécialistes mais massage fépp la kan moo ni musul dem kan moo mun a taxaw rek bare na ñoo xam ni ñu néew ñoo naan man musuma tukki dem hôtel def massage et cetera ñëpp xam nañ ni dafa massage boo xam ni massage médical la da nga feebar massé wu mais ñëpp xam nañ ni massage normal ñu bare dañ koy def. et je désolé am na ñoo xam ne ci métier boo mun a gis am na ñoo xam ne dañu dëng. métier journaliste am na ci ñoo xam ne dañu jub ils sont transparents ci wàllu massage aussi am na ñoo xam ne man xam naa ñoo xam ne am na loo xam ne seen salon amu fa comme aussi am na ñoo xam ne dañ ciy profité pour euh, prostituer wu pour def leneen wala pour def leneen il faut pas que ay nit ñu ngi ciy dund di ci suturlu il faut pas que ñu stigmatiser leen jàpp ni euh, ñoom li ñuy def rek ñoom ñëpp ñoo def mais est-ce que comme jiixi jaaxa am na ci ndax moytu warta woon am non dem nañu rek ba jiiki jaaxaar xam nga moom Ousmane Sonko dafa jàppoon ni politique bi ko seq ay nit ñoo xam ne ñëpp na moom la ñu mel c'est-à-dire jàppoon moom mënul woon imaginer que am na ñoo xam ni mais est-ce que xam ngeen ni ñun amul benn homme politique boo xam ne daa wax ci sa téléphone normal Sénégal mhm, boo seetee homme yi ah kenn du ci wax ci téléphone WhatsApp la ñuy wax parce que ñëpp xam nañ ni dañ dañ lay déglu maanaam ñu ngi fuyee ci sa vie di déglu la ngay wax di seet fa ngay dugg di maanaam te loolu dafa war a doon loo xam ne c'est pas normal dañu war a déglu koo xam ni wéyu la déglu koo xam ne dañ ko war a jàpp enquête moo war a tax ñu déglu ko et cetera donc mhm. fii dañuy gasal dañ lay gasal ay kàmb yoo xam ni pour nga daanu ci pour ñu liquider la c'est-à-dire que politique bi on n'utilise pas des règles wala des armes conventionnelles c'est-à-dire da ngay utiliser des moyens de l'État pour daaneel ni loolu rafetul te nit ku baax du def loolu dañ lay dañuy dañuy gas kàmb xanaa foo seen pënd war ngaa jéem a teggi man pour man ba léegi munu ma wax la fa am ñun ñi munuñu ko wax parce que ñun ñëpp ñun ñëpp fekkewuñu ko. non de dem gi la wax quoi de façon générale. oui je je considère que y a eu un de naïveté sa part même bu fekkee ni man du question war na fa dem wala war fa dem dama même daw sport génn defal sa bopp sport yow kenn ci fi mu toll lu dans nos pays nga xam ni gis nga kii ñu fi wane sànq mu ni moom empereur la. ku ku jàpp ni moom empereur la jàpp na ni kenn waru ko même euh, contre te dana faagaagal képp ku ko contre dana la faagaagal Idriss Déby laay wax c'est-à-dire que gis nga nguur moo moo doy waar dafa am benn ku nekkoon ci pouvoiru Senghor bu may nettali papam dafa mus voyager rapidement mu voyager euh, seen seen euh, avion am retard nee na mu wàcc Euh, ñu dugal leen war leen yóbbu hôtel moom comme que business la doon voyagé ñu jox ko taksi nee na bi ñu waree dem taximan bi euh, mu ni ko jaaral fii taxi bi jaar fa ca des nee na mu mer mer mer mer ba def une crise de colère nee na bi mu ñëwee ci chambre d'hôtel la mu ni mais man pourquoi je me suis emporté autant nee na il s'est rendu compte depuis des années musu wax ni teg ci baat moom lu mu wax dañ koy def pour la première fois mu génn ni waa ji jaaral fii mu jaar fee nee na mu def ñaar ak xam ni moom wax dëgg yàlla moom tegoon na boppam keneen ku dul nit xam nga nguur. nga génn. waaw c'est-à-dire pouvoir ci boppam moo corrosif. pouvoir da ngay dem ba yaakaar ni yaa ko moom alors que dañ la ko dénk. Uh-huh. donc yow képp ku jóg pour wut ko da nga koy faagaagal te loolu moo am Sénégal tey moo tax suñu xel tey ci ni mu demee. alors léegi. léegi su faagaagal mais faagaagal mooy rek mu rafet mu faagaagal rek mooy est-ce que tamit jotul ñu ñu xoolaat la façon de faire de la hmm. politique. au Sénégal voilà gentleman mën nañu mën nañu mën nañu xiiroo mën nañu ŋaayoo ci wàllu ci wàllu idée ci wàllu gëm-gëm euh, mais tamit ñu sóoraale que ne nit ki am na njaboot goo xam ne moom moo wéeru ci ginnaaw mais asu loolu c'est des deux côtés ah du rek ñi ci nekk ci nguur gi même boo nekkee ci ku jig aussi la man de bokk naa ci ñi ni politique dafa am éthique euh, man kenn du ma dégg ma saaga man wax ju ñaaw sax duma ko wax xaw ma je considère que réew mi opposé wu mooy yéen li ngeen fi wax nii ñun loolu la ñuy wax mais j'ai ngeen def un diagnostic mais boo xam ni extraordinaire sur réew mi sur les procédures nit ñi ni ñuy doxalee et cetera ñun loolu lañu jàpp ni dañ ko fara dindi président Macky Sall lu tax ñu faloon ko mais ab président Abdoulaye Wade daf fi nekk mais di def lu ko neex dem ba jàpp ni sax xëy na mun na fi teg bon et cetera nit ñi contre ko à un moment donné mais loolu dañ ko faloon am yaakaar ni loolu daf koy soppi donc bu defee ay at loolu war na yi mu waroon attaqué à mon avis mooy justement son administration ni affaire yi doxee parti pris yi nga xam ne lu neex waaye def mhm. impunité yooyu lañ doon xaar ci moom bon gouvernance mais loolu defu ko maanaam defaraat nekkinu askan waaw ba nga xam ne politicien ci boppam man pour man dañu war a fixer ay règles yoo xam ne mos nga gis réew États-Unis président la dafa ni dañ ma sàcc président ci boppam moo ne dañ ma sàcc mais kooku man je pense que président Amérique président africain la woon rek gis-gisu africain la am gis-gisu sénégalais suñu chef d'état yi bu nekk Amérique yaakaar ni noon la affaire bi war a tëddee je considère que effectivement politique dafa war a am éthique mhm. dañu war a fixer ay règles yoo xam ni mais kenn waru ko def nit warul utiliser les moyens de l'état la justice pour mhm. combattre un adversaire justement bi gis nañ ngeen ne par delà l'opposition le front appelle les patriotes démocrates à se tenir debout unis pour arrêté ce que vous considérez comme genre euh, dictature en ci naka ngeen koy arrêté non xam ne sais pas ndax gis ngeen euh, même il euh, y a une étude qui a été faite récemment sur la démocratie Sénégal dafa am recul sur le plan démocratique c'est clair hein léegi le Sénégal est classé entre démocratie imparfaite et dictature parce que gis nañu Sénégal processus démocratique bi processus électoral bi baaxul euh, cetera donc il y système de notation au plan international Sénégal dafa dellu gannaaw ci wàllu démocratie parce que li ñu gis mooy effectivement on a on on, liquide des adversaires mais vous pensez que li xew nii bu continuer dana jur jàmm Karim nga éliminer ko xalifa nga éliminer ko Sonko jóg nga éliminer ko indi sa parrainage ku wax nga tëj mais xam nga affaire bi li muy nugg mooy nga nekk ci autoroute di dawal gisoo benn oto ngay daw 200. da benn affaire bu ndaw mooy fël nga. yéen mun leen a arrêté chauffeur bi nag. bi chauffeur bi parce que gis nga ñun suñu rôle. suñu rôle du c'est pas de de de de faire les choses nit ñi ci seen bopp li xew dem à mon avis bu ñu bu ñu ndax suñu bopp ah c'est les masses qui font la révolution c'est les populations ñoom ñooy dem ba seet doyal. li xew 2012 li xew 2012 bu ñu yaakaar ni affaire parti politique la. nit ñi ñooy ñoom ñooy voté ñooy dem ci urne yi te Sénégal toll na foo xam ni wax dëgg mm. yàlla li xew démb ak mbas mi ni mu mel coono mm. gi am ci réew mi nga xam ni nit ñi sonn nañ petit métier petit boulot ñoo ñëpp amatuñu lu ñu lekk parce que tey jii da ngay wàcc wara a wut fonde boo reeree war a wut ndambe boo reeree kooku tëj na et cetera on traverse une situation très difficile Sénégal tey le secteur informel pratiquement mooy yor économie bi secteur informel ñëpp xam ne ni doxatul mm. les son la maanaam tous les ingrédients sont là pour une instabilité boo xam ni on kenn soxlawu ko. tey dañu war a calmer le jeu Ousmane Sonko am na lu ñu ko jiiñ mais calmement nañ bàyyi yoon calmement def yoonam. liggéeyam état waru ci dugg waroo waroo convoqué waroo ko convoqué te convoqué ko mais kan mooy am problème te nit ñi duñu ñëw sa kër waxuma sax politicien tey ku ñu woo wax ko ci rajo bi ñëpp di ko dégg sa mbokk yëpp daañu ñëw sa kër mais maa déglu euh, ku fa nekkoon un responsable de Pastef il dit mais ab ka fa newoon sur le terrain demoon na ba calmer les jeux le jeu am na ñu fa ñëw Ousmane Sonko s'apprêtait à sortir pour parler avec eux ni leen dem leen ñibbi le gars a reçu des ordres on va lui dire mais il faut foncer sur les gens parce que xam nga lu tax ñoom seen objectif mooy sénégalais ay ragal lañ boo dóoree dóoraat dóoraat rek après boo demee sa kër ñun la non non non affaire bi xam nga bon euh, affaire bi est-ce que na ko est-ce que doo sa bopp pour dara et cetera hmm. donc la répression. mais il y a une différence entre ragal ak avoir une capacité de résilience. oui c'est ça mais la mais xam nga ñoom jàpp nañ ni. naa Sénégalais capacité de résilience am moom moo xaw a bëri nit ku mën a muñ la. <laughs> ku mën a muñ la mais bu xasee ba jóg nag mënul dootu ko mënul toog dara la. c'est ça le problème c'est-à-dire que ñoom loolu dafa bokk ci seen stratégie or police. il faut que police bi réconcilier wu avec les populations la police doit être au service des populations police maintien de l'ordre à la limite nit boo gisee policier sax da nga ko war a respecter mais bu ñu demee ba nga xam ni policier bi dañ koy jouer loo ce rôle là loolu moo tax foo gis police rek déjà non non été étudiant leader de mouvement étudiant je peux vous assurer que tous les mouvements il y a eu des grèves des situations extrêmement graves yoo xam ni sànni benn lacrymogène na ko indi parce que boo nekkee ci mouvement de foule yooyu nga doon wax il suffit que ñu sànni lacrymogène mais dootoo xamante fooy taxaw d' abord da ngay da ngay énervé jël li nga mën rek mooy jël xeer sànni parce que amoo beneen moyen. amoo fetal amoo dara léegi lan ngeen euh, lan ngeen lan ngeen lan ngeen fas yéene def. li ñu fas yéene ndax gis nañ ne tey ci xëtu euh, le quotidien national le soleil nee nañ la procédure. Euh, déclenchée nañ ko oui mais ñun li ñu li ñu amul kenn ku d' accordul ci nii ci opposition bi ñu nee dañuy def communiqué d' abord y' a unanimité ñëpp a d'accord ni dañu war a dañu war a soutenir parce que ça rentre dans un cadre global de liquidation mm-hmm. mais deuxièmement aussi amul kenn ku ni Ousmane Sonko warul wuy ji Ousmane Sonko c'est un citoyen bu ñu ko woowee la fa xew moom moo war a dem seetal boppam évidemment loolu mbirum mbiram la ak ndaw si ak yoon mm-hmm. parce que man néew ma foon xaw ma lu fa xew mais li ñu wax mooy état bi moo war a génn ci mbir mi parce que mbir mi ni mu demee démb loolu am na nuñ doon doxale loolu du am bu fekkoon dañu lever immunité parlementaire ña fa nekk ñu ñëw wax ak ñoom calmement Ousmane sonk ñu may ko mu génn wax ak ñoom ñu ñibbi. ñu ko lever son immunité parlementaire évidemment dina dem wuy am na ay avocat il mhm. loolu dans un de droit loolu moo normal mais bu fekkee ne nag dara dafa xew mhm. looloo tey xelu nit ñi ñu gis état dugal ci loxoom évidemment nit ñi daañu alerte en disant am na xale yi euh, benn jëw bu leen di jëw il faut ma wax la ko comme yaa ngi fii parce que dañ ni yéen da ngeen tudd front mais doo leen dem ca front ba mukk est-ce que quelque part aussi amul leen benn euh, benn rôle boo leen di jouer ci éveil yu nit ñi population yi ñu jéem a seet xeex bi ngeen di xeex mu bañ a yem rek ci dem dans les médias. mais ngeen jiitu. Euh, voilà parce que peut-être euh, démb bu fa mag nekkoon dina xaw a tane. xam nga yéen dafa mel na nag da ngeen di fàtte parce que diggante 2012 ak léegi li fi xew bare na ñaata manifestation ñoo fi am ñaata leader lañ fi jàpp. ñoom Mamadou Diop dëkku mais on a arrêté des gens ici les gens ont manifesté bi ñuy def parrainage yóbbu ko assemblée nationale hmm. lu ne xew na fi les gens sont sortis ñaata marche lañ fi def autoriser ou non fii def nañ fi benn marche RTS mais amul lu ñu deful maintenant nag li wutale euh, président Wade dafa daan jékki-jékki xam ni lii kat waruma ko def ndax am na lu may sédd ëllëg ñi ñu séqal dafa benn ñoom seen stratégie mooy du ñu dellu gannaaw dellu gannaaw amul nañu foncer parce que boo dellu gannaaw da ngay wane faiblesse donc loolu moo indi fitna. on naa le choix entre jël ay gànnaay loolu réew mi weesu na ko. ñun li ñu nekk actuellement mooy nañu fexe am processus électoral bu permettre un jeu démocratique en 2024 mais ci processus électoral boobu si bomb ko mooy parce que. Ablaye Chérif waxtu bi waxtu bi <laughs> bi euh, mu ngi may artu boobu ba tey may bàyyi muy euh, muy xabaar ba ñu dem allo présidence dellu si waat.